money or receive it. Our low rates, 10-minute transactions, and thousands of locations worldwide make connecting easy. And easy is good. MoneyGram. Money transfer. Choice is in your hands. Assalamu alaikum. Milad, ha? Ki mo si ki la bëggoon Ne? angin ya hmm. oh lima lah. Ya, ini nak gisu bees la lii mooy saa juus am na pineapple am na mango am na orange ay lima moom neex na di warkalla dikkal ci kër gi waa jaga lii ko bëgg a am fan ngay def li soko buge hmm? da nga jokko mamadou eh, m y diallo hmm? number 17 william street bandu. Hmm? kep ko xamanteni bu nga ci wholesale wala retail wala legi ah kon bo sajus Semua kami kena kena tak juli. Mana kan? Semua dah sebab. Ibu

warga salaat amal na leen tamit paquet bu ndaw ku ko bëgg am mën nga dem ci bépp boutique wala marché wala boo bëggee mën nga dem ci number one Pictet Street Banjul warga salaat moo fi toj Life and Dara, we are coming again. Mr. Busky, life in Brickham and Joko. It's gonna be the very first time in Brickham. It's gonna be the biggest night party of Brickham, of the Tobaski weekend. Life and Direct Champion Sound. It's gonna be 12th November 2011. Life and Direct in Brickham and Joko. Guest artist only from Senegal. Jole Jama Noir, Life and Direct in Brickham and Joko. Tickets are $75 before 12 o'clock. After 12 o'clock, it's gonna be $100 flat. Guest artists in the house, Mighty Joe trust Yo, Brixton gangsters, the tsunami, I'm on the pipeline coming. It has been a while, I'm there at it, you know, 12th November, coming with the full family. Tsunami, Mighty Joe, come with me, explosion. There at it, become a joker. I'm out. Queen Bala, Stalwall, Life and Dirty, become a joker. we're coming to your place, become a gold menaka. Mr. Besky Special, Saturday, 12th November 2011, Palekhawe, Joko Brikama, the second Champion Sound, Dylan, Indian from Dakar, Senegal, Njole, Bromley Bronde, Jole from Senegal. Young people, the young Atlantic, bees a bees lu bees lépp fa ko bondel ba mu bonde ak njole jamaanwa sponsor by official assalamu aleykum mbaɗimoɗo ngaali konton hutanan aliye kaccala kotake nin iec lamolo independent electoral commission kaali yalon ko wolle marta carte fayo kuñalañin banko kan bi fanan naata kañoo so hakkilla kañoo hakkiloo bulandi kañoo rawaye kañoo fahamundi kuwol la men ye lon ko wo lemu karte fayo la sartol te anin an tilin karte fay ba men na ye kuwolu men lu landi a ñatilimo la bitum mbal be bisimilandi la kacañin kono kabirin katon fo koyna lamoyirlaɓe dawda ali bee bisimila bokkee ñoo déglu ñu ngi leen di nuyu di leen sargalaat ci suñu waxtaani xam xamalante ci programme e eh, sani karta parce que ñëpp xam nañ ne fu mu nekk sànni karta ba ngay ñëw eh, jege si na mooy eh, presidential election mooy sànni karta pour place président fu mu nekk nii nag eh, comme que mbir mi jege na ñaar fukki fan ak ñeneen si weeri novembre bi la mu ngi tombe ba si alxamis kon nag baax naa pour ñu xamalante fàttali wante lan ak lan moo ñu war Eh, looloo tax kilifay ñëw toog fii ñu jógee ay ici e pour waxtaan a askan bi waxtaan a réew mi eh, lan ak lan eh, moo war nit ñi musal gambia meɗen on salmina caggal salminangu o meɗen on waɗa bismillahi oɗo yewtere hannde par ce que mawɓe aic e ari hannde kala pour ɓe yewta ɗo ɓe andina yimɓe sartaji ko ɓe wallini e sengo weddagol karta par ce que weddagol karta o ɓattima ko balde nogas e nayi oɗo lewru novembre ñande alkamisa si allah jaaɓi e wayri ɓattima waktu o waktu ɓe footi ɗo arde ɓe yewta e yewɗe yimɓe ɓen pour yimɓe ɓen anda e ko hoɗum e ɓe footi wadde ko ɗum waɗi ɓe mawɓe aic e ari ɗo hannde kala pour ɓe yewtida e yimɓe bitum mbaɗingol on nimmeno ɓe sirin dial alhaaji aliou momar ndiayi atamo commissionnalité aic e atoɓe kaccalali en e suroi counte bi Eh, bitum na sartolu mumenu ti mge a bole folali e aɗum nak kacakumu mumen ti bi wolem nomination oti i ñanta men no tombon na pour carte fa yo buña kammala bi na kacakumu mu woleti bitun eh, ataɓe eh, kacakilali surwa kaŋo to bitun dakkunniŋo Eh, musamane nte fanam be ka eh, eh, pour ka sindial ma maninka kaŋo niŋ fula kaŋo to wayri tombondiro sita tubabolu ka fama ma nomination bitun be kaca la wole la bi na kaca kumuwol ti bi ah, alhaji ali umar ndjay kola Eh, Suleiman Diouf bijang atele mo director ti administration do ko bunda maralo ni samba nya kunya la karola ata fanam bijang bitu ngata bakachala bari ngole jola kamato aninni wato sotota sindi bari ngole karoni ka kamato wo kola na sign language expert bijang wolem babkar ndom ata mo regional assistant regional eh, electoral officiality banjul tundola bari bitu ngata be kara sindila bari ngul mapuru men ya lonko keta eh, tulusukol ti anin mumnewlu ata bakara taman serla wolle kayre pour wol fanal sa fahamu mbe men fo kan kaŋolu to bitun ate fanaŋ be siirin jaŋ itel be eh, wo le daliloo kaŋ jaŋ bii eh, bo kay comme ni ma leen ko waxe dinañ eh, doore alhaaji aliou mawar ndiaye comme que tey li ñu waxtaane mooy nomination mooy kilifa ñoo tànn pour ut eh, place place president bi ci sànni karta bi ñëw nii dinañ doore alhaji aliou mawar ndiaye comme que moom mu ngi fii Souleymane Diouf a fii Babacar Ndong a fii waaye El Hadj Momar Ndiaye moom mooy waxtaan ci wolof eh, affaire yi nomination bi comme que moom la ñu waxtaanee tey El Hadj bëgg naa eh, nga baaxee ñu lan lan la ay isi parel tey. asalaamaaleykum yéen mi ñëw déglu ak ñu ñëw gis jàkkaarloo yëpp ci fii ak ñu nekk bitim réew maa ngi leen a jox nuyoo El Hadj Moustapha Kerel chairman AIC ak waa AIC yëpp. fu ngeen mun di nekk ñu leen nuyu di leen gërëm te di leen wax ne alhamdulilah rabbil alamin ci tabaski bi passé nii jàmm ji fi nekk yal na ko yàlla saxal dàkk élection yi ñoo dégal dégmal nii ñu tàmbal ko ci bismillahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilah rabbil alamin xam nga ne wig balee ñëwoon nañ fi di leen wax ñi bëgg a taxaw comme président yan sarta lañ tiral nga xam ne moom lay war a matal pour ñu mun leen a consider léegi nag loolu moom yembana fi mu nekk nii moo tax incha allah ganaaw suba alhemes di fukki fan ci weer yi novembre ñu ngi war a commencé nag di receive nomination si ci rëb juróom-ñetti waxtu si suba ba ñeenti waxtu si ngoon ki nga xam ne moom la ñoo war a njëkk a teeru ci aic e office ba mooy udp ci fukki waxtu fukki waxtu benn muy NRP fukki waxtu ak ñaar muy GPDP benn waxtu APRC ñetti waxtu GMC xam nañ nag ne fañ nekka place bu yaatu la place bu ees la place bu jekka la waaye tam foog ñuy limite ñi nga xam ne ñoo foor a ñëw du ñu bàyyi ku nekk rek mu ñëw moo tax ñu ne pati bu nekk dañ la bàyyil ñetti téeméeri nit nga ñëw ba ca bunti buti bunti kër ga waaye nag ci biir salle bi fa nga ne fa ngay indi sa kayit yi pour ñu nominer la kenn peut bu nekk ñu ngi ko àppal fukki nit rek pour mu duggas ci biir kër ga ci des mën a nekk ci biti su loolu passé nag al suñu defee nomination bi alxames ajuma samdi ci la campagne bi commencé campagne bi nag soo xasee commencé ñun ay senior responsible kenn ku foo bëgg a dem rek ñun ñoo la waxee demal fii wala bul dem fii parce que ni ma ko waxee woon ca wig bale ku nekk da ngay indi sa itinéraire mooy fi nga war a dem yépp ñu seet ko seet pour xam ne kenn du nekk ci benn place ñaari nit tase fa ñaari parti tase fa loolu la ñu jéem a daw moo tax ñu ne ku nekk da ngay indi sa itinéraire ñu xam ne ku nekk fii nga war a dem léegi nag instrument li ko doxal lu jafe la parce que am nañ junne ak ñetti téeméer ak ñaar fukki place boo xam ne dañu ko war a oote pour ote ko nag